يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم jërëjëf jërëjëf sëriñ Habibou Diatara sëriñ bi baax di ziyaare di sant suñu borom subhanahu wa ci jotaay bii nga xam ne tawfiq la ci ñëpp jotaay bi nag dañuy fexe rek ba incha allahu du yàgg lool ndax fi la nu yendu doon liggéey ci sas wi nga xam ne yëkkati woon nga ko muy sumb bu am solo di sumb lislaam di sumb boo xam ne sumbal nga ko al insaniya mooy mbooleem doomu aadama yàlla na ko suñu boroom mottale ci sa kanam nga fekke ko lu yàgg yàgg ci février 2018 ci lañu amoon jotaay bu màgg boobu ca kër sëriñ Touba ca jumaa ja nga yëkkati fa kàddu yi nga yëkkati wane ne liggéey bi mooy saw sas wi nga jiital waa ñépp yëg sa yitte ak sab taxawaay ca saasa sëriñ Ahmadul yi mii nga xam ne moom nga teg liggéey bi ci loxoom la daldi woote ca booba lañ taxawaloon ay kuréel yu doon liggéey ngir jëmmal bëgg-bëgg boobee ak yéene joojee nga xam ne bëgg-bëggub sëriñ Touba di yéene sëriñ Touba radiyallahu anhu commission yooyee nag lañ doon liggéey suñu boroom def ci ay tawfiq def ci loo xam ne kawe na njort ndax pas-pas ak yitte moo ci feeñ ba loo xam ne mën noon nañ ko liggéey ci at yu bari ñu liggéey ko ci diir bu gàtt kuréel yooyu nag tey dañ ne woon jotaay bii eh, dañoo bëgg bala ngaa yegg ci ñoom ñëpp ñu dajawaat xoolaat lañ liggéeyoon toppaat ko ba ne daal lii mënees na ko jébbal suñu kilifa gi ñu santoon liggéey bi kon loolu mooy solos jotaay bii nga xam ne sëriñ Ahmadul Badawiyu moom mu nga xam ne moom nga tegoon ci suñu kanam mu ànd ak ñun liggéey bi àndin wu rafet nekk ci nekkin woo xam ne wu rafet la ba ñu àgg fii ñu àgg moom mooy yëkkati ay kàddu bu noppee jébbale liggéey bi sàkku ci yow nga ñaanal ñu ñu gën a laxasaayu gën a feddali laxasaayu gën a ànd ak yow ba li nga bëgg suñu borom subhanahu wa taala def ko damay gaaral ci lu gàtt rek kuréel yooyu doon liggéey ndax kuréel yooyu sëriñ Ahmad danga ko cee jiital mu am nag ay yeneen kuréel yoo xam ne ñoo doon liggéey ci alquranul karim sëriñ Moustapha Diop Ndar jiite woon ko ànd ceeg sëriñ Fallou Mbak imam ak mbooleem sëriñ daara yi dëkk bi ñu liggéey ci liggéey bu rafet rafet boo xam ne gaaral nañ lépp tey liggéey boo xam ne jàpp nañ ne ci daara yi alxuraan gisaguñu ñu binde ko noonu tërale ko noonu ñu am yaakaar ne liggéey buy barkeel lay doon ànd ñu leen laajee lim bi ñu àndaloon di liggéey mat nañ téeméeri sëriñ daara ak i boroom xam-xam ci wàll yu baree baree bari ginnaaw bi am na kuréel goo xam ne daara yi bi moo ko doon saytu sëriñ Mbàkke Abdourahman jiite woon ko ànd ci ak ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñu bokkoon ca commission boobee daara yi nga xam ne mooy daara yu suufee yi ñu koy wax ma marxala ibtidaaiya ak i'daadiya ak nga xam ne mooy eh, lekkool yi fi nekk cañ war cee liggéey liggéey boo xam ne dina dëppook njàngaleem sëriñ bi ak li nga xam ne moo méngook dëkk bi sëriñ naa jiite woon commission boobu ànd ci la juróom fukki boroom xam-xam ay jàngalekat ak ay inspecteur ak spécialité yu wute euh, kuréel gi nga xam ne ñoo doon liggéey daara ji nga xam ne mooy daara jiñ jagleel ñi mokkal alquran nga xam ne lañ waroon a jàng ci juróom benni at dañ leen di tëralal programme boo xam ne dañ koy jàng ci ñetti at ba nga xam ne li ñu at yiñ def ci njàngum alxuraan du leen yàqal da leen di gën a dooleel ci njàng mi ci seen kanam loole sëriñ alxaaji Fàllu Njaay Gédé moo ko jiite woon ànd ca ak ñaar fukki nit ak juróom ñaar e, li nga xam ne mooy njàng mu kawe bi moom dafa am ñaari pàcc ndax kulliyatu dirasat al islamiya wa luga al arabiya wa adabiha kulliya boobu nga xam ne moo jëm ci njàngalem lislaam ak luga arabiya e, sëriñ Abdul Ahad moom moo ko doon moo doon saytu kuréel boobu moom it ànd noo ci ak lu mat ñaar fukki nit ak ñeent eh, li ci nga xam ne moo jëm ci yeneen kulliyaat yi nga xam ne mooy faculté yi jëm ci métier ak agronomie ak yu ni demee sëriñ Mor Faye professeur Mor bu université Gaston Berger moom moo doon saytu kuréel boobu ànd ci ñu baree bari professeur Lamine Gueye mi nga xam ak Pape Gueye mi nga xam ne ñu ngi ko doon ñaanal léegi di ngi ci woon ak professeur Thioub ak ñoo xam ne mi ngi ànd ak ñoom ci jotaay bi tey euh, loolu mooy kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo doon liggéey liggéey bi mu amaat yeneen kuréel yoo xam ne dañ doon jàpp ci liggéey ci yeneen anam ndax wàllu communication am na kuréel boo xam ne Serigne Chouaïbou Kébé moo ko jiite amoon na kuréel boo xam ne ñoom ñoo doon jàppale daar ji lépp loo xam ne informatique la ak kuréel boo xam ne ñoo doon jàppale liggéey bi ci lépp loo xam ne wàllu tradition la loolu mu am nag bopp mbooloo mi nga xam ne ab comité de pilotage lañ ko tudde woon sëriñ Ahmad Badawi yu nekk ca bopp ba di jiite liggéey bi nun ñuy nekk ci wetam di ko jàppale ci coordination ak tansiqu liggéey bi sëriñ Chouaïbou Kebe nekk ci sëriñ Mamor Dem sëriñ Mët Dem nekk ci Euh, ànd ci nag ak ñi nga xam ne ñoo jiital jiite jiite kuréel yi ak ñoo xam ne ci wàll gi la ñuy yëngu sëñ Muntaqa Jatara bokk ci sëriñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Khadim Mbacke bokk ci sëriñ Mouhamadou Lo di inspecteur bokk ci sëriñ Mamor Bousso bokk ci kon ñii sëñ bi ñoom ñoo doon saytu liggéey bi euh, mu am nag ay kuréel yu ama am solo ñoom it yoo xam ne liggéey nañ ci ndax soxna Jéey Juuf moom it indi na fi kuréelu ñi nga xam ne ñooy archiviste yi ak documentaliste yi ñoo xam ne ñooy saytu lépp luy archive ak lépp loo xam ne ay document la euh, di liggéey ci wàllu bibliothèque ànd naa kuréel bu am solo liggéey fi liggéey bu ama ama am solo euh, moom nag sax am na ginnaaw bi beneen liggéey bu mu jiite waat ñëw na mi ngi ci jotaay bi mooy institut de langues et métier du livre nga xam ne institut la boo xam ne lépp lu ay luxaat dañ ko fay jàngale ñu fay mën a jàngale li ñuy tarjama di fa mën a jàngale waajal ñi nga xam ne dañoo déggul arab war a jàng arab wala ñi nga xam ne jégguñu français te war a te jàngoon ci arab ñu mën leen a waajal bu ñu duggee ci daara ji mën a wëyal seenu njàng loolu it liggéey nañ ci lu sori liggéey ci it loo xam ne nu ñuy def bay móol ay téere xam-xam ba ca aju loolu lépp am na kuréel boo xam ne ñu ngi ciy liggéey ay boroomi xam-xam nekk fu nekk ci àdduna bi ànd ci ak moom waaye mu amaat ki nga xam ne mooy professeur Magaye Gueye mu ngi ci jotaay bi moom médecin la urologie bu université Cheikh Anta Diop waaye dafay saytu ci euh, léggéey bi ñu yor benn institut supérieur des métiers de la santé muy Mahad Ali boo xam ne lépp luy wàllu euh, faj dañ ko da cay da koy jàngale di former ay infirmier ak infirmière ak ay sage jàpp nañ ne sax loolu bu taxawee mën naa dem ba nekk kulliyatu tibb maanaam faculté de médecine boo xam ne dañuy former ay médecins kon lii lenn la rek sëñ bi ci ñi nga xam ne am nañ ay taxawaay yu am am solo waaye li ci jàpp weesu na lii ndax fu fu nekk taalibe wane na yitteem ci jàpp ci liggéey bi am na réunion yoo xam ne buñ ko doon def ñii dañuy nekk kanada ñii nekk États-Unis nekk Arabie Arabie Saoudite wala feneen ñu koy def jaarale ko ci euh, euh, xarala yi loolu lépp liggéey nañ ci waaye lépp rekk ngir bëgg ngërëmul yàlla ngërëmul Serigne Touba ak di ci sàkku su ngërëm bëgg lépp euh, mel ni nga ko bëggee ndax loolu xam nañ ne mooy njariñul suñu njariñ tey mooy suñu njariñul ëllëg kon yàlla na ko suñu boroom àggal nga fekkee ko lu yàgg yàgg yàgg ñu ànd kook yow kon kàdd yooyu laa doon yëkkati rek xam naa lu ma ci fàttere ca juum ci nañ ma ko jéggal euh, waaye kon dañuy jox sëriñ Ahmadu kàddu yi ndax moom moom moo yor suñu kàddu nun ñëpp ñun dañoo nekkoon ci ginnaawam rek di ko jàppale ci liggéey bi waaye da doon dañ doon gaaral rek ñi nga xam ne ñoo doon yëngatu ci biir liggéey bi kon ñi ngi jéggalu bu baax a baax sëriñ bi ah di sàkku nga ñaanal ñu daal yàlla kàttanal ñu ba li nga bëgg nu man koo defee nii nga ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu aousubillah min alcheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wasallama wa baraka ala nabiyihi alkarim wa ala alihi wa saxbihi wa xayra xadimi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati sunu ziyaar bu tedd di nuyoob lislaam di ko teg ci loxal loxal al cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifa al aam lil muridiya di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba yéene yi mu yéene liggéeyal sëriñ bi ci toolub lislaam yépp mu mën koo def ni mu ko bëggee te nu ànd ko ak moom di nuyu mboolem njabootam gi nga xam ne ñu ngi teew ci jataay bi ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñi ngi ànd ak moom fu nu mën a nekk ci àddina bi di ñaan sunu borom àggale yéeneem di am mbégte mu rëy itam ci jataay bu am solo bii nga xam ne teew nañ ko tey nga xam ne dafa doon jataayub Cheikh Mouhamadul Mountakha boo xam ne moo ko tànnal boppam di ko wooteel boppam di ko taxawul boppam di ci teral ñi nga xam ne nag ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam ñi nga xam ne ñooy ndonay yonent yi alayhimu salaam ndax al u warasatul ambiyaay mu yëkkati teraanga ju tol noonu jataay bu tol noonu di ko di leen ko defal ngir di leen ci soññi di leen ñaax di leen ñemeloo di leen fital di leen ci teral mu doon jataay boo xam ne boobaak léegi am na ab diir ñu ñaan mu yàgg koo taxawe lool te gën koo man bu baax a baax di sant itam ci teraanga yi nga xam ne da ko ciy toggoo nga xam ne kawe na jort di ko def itam ci dëkk nag boo xam ne mooy dëkkub xam-xam muy Tuubaa nga xam ne borom bi def sunu borom sëriñ bi dafa ñaan sunu borom mu def ko muy dëkkub xam-xam di dëkkub jàng ak jàngale di dëkkub xalaat di dëkkub jariñoo xam-xam di dëkkub leer boo xam ne dafay génne nit ki ci lënd lëndëmu ñàkk xam di ko dugal ci leeru xam wajalhu dahban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wa maskana alirshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi wajal wa amalin bi sunnatin wa xilmi sëriñ bi nag di def at mu jot bu ko wootee boroom xam-xam yi kenn ku nekk si yéene ak sa kàttan nga jëfe ko jot gi jataay bee xat waaye at mu jot buñ ko mosaan def li fiy génn ci ay xasaa it yoo xam ne bu ci gën a yéeme nga ne bii la yépp jëm ci moom jëm ci lislaam jëm ci cheikhuna alxadim radiallahu anhu jëm ci xam-xam jëm ci ñi nga xam ne ñoo koy ñoo ci yëngu xat-xataayu jamono ji nag tax waaye kon defe naa ne lu bari ci xasaayit dana fi génn waaye sëriñ bi wax ne at mu jot nañ koy gën a saytu di fexe ba njariñ li di gën a yaatu ren nag ñu tànnoon liggéeyam bu am solo bii nga xam ne mooy liggéey bi muy defal sëriñ bi ci toolu lislaam ñu bëgg cee waxtaane liggéey boobu fu mu toll li ñu njëkk def nag moom mooy sant ko moom ci boppam sant borom bi subhaanahu wa taala mi nu booleeg Cheikhul Xadim waaye boole na ko Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu defal ñu tawféex ndax bu ñu amoon baat bu gën a taw kawe boobu boobu la ji wax waaye defal ñu tawféex ci liggéeyam bu màgg bu tedd bii nga xam ne dafa bokk ci liggéeyi Cheikhuna al Xadim radiyallahu di loo xam ne moo fi indi woon mboolem yonent yi alayhimu salaam ba yegsi ci Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu ba agsi ci sallallahu alayhi wa ak saxaabatul kiram ba sëriñ bi ñëw def ci taxawaay boo xam ne àddina bépp sedd nañ ko njariñ li fu nekk yegg na fa ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi yar ci loolu la leen yaroon njabootu boppam gi bokkam yi ak mboolem ñu àndaloon ñi mu defar ñëpp ci loolu lañ nekkoon ñi ko fi jiitu moom itam toogoon ci toogaayub sëriñ bii ci loolu lañ nekkoon waaye mu yegsi nag ne moom benn liggéey boobu la am benn bëgg boobu la am mooy defar doomu aadama mu am texe ak àdduna texe ak àllaaxira loolu nag mu jaare ko ci yar ndaw ñi jàngal leen ñu am taw fexe nag mu liggéey loonu ci ni nu ko junje léegi bi mu ñëwee wax ne benn bëgg bi bëgg-bëgg bi la am waaye wax ni mu ko bëggee wax ne dafa bëgg tabax daara joo xam ne dafay tàmbalee ci ki dal baasiin ba ca njobaxtan la bi mu ko wa bi mu la ko waxee wax kàddoom yu tedd yu sell yooyee bisub altine la woon ca talaata ca àllarba ja lañ daal di defub daje wax ne kat bala ñoo xool nu ñuy jëfe jëfi sëriñ bi nañ xam li nu sëriñ bi def la ba noppi ñu wut mbooloo kenn ku nekk ñu wax la waxam ju tedd joojee ne la na nga ko déglu nu mu la soobee boo noppee nag li nga dégg nanga ko bind bañ ko bindee ba génn ci aw déggin muy daara joo xam ne day tàmbalee ci kii dal baasin ba ca njobaxtan la kon bàyyiwul kenn ku bëgg a jàng bàyyiwul kenn ku war a jàng bàyyiwul menn njàng mu am solo mu am njariñ boo xam ne warees na ko jàng ci loolu ci lañ taxawale kuréel yi nga xam ne juróomi kuréel la woon ca njëlbeen ga waaye dem na ba mat juróom-ñaari kuréel kuréel bu ci nekk am luñ ko dénk wax nañ ko léegi ñi nga xam ne ñoo doon jàng ñoo ñoo féetewoo daare alxuraan ji def nañ ko ba nga xam ne nit ki fi mu dalee tàmbalee ci di hijji tàmbalee ci benn araf day ji ba ba muy beqi bind kaamil lépp te tënk nañ ko waxtu wu nekk lam ca war a def waxtu yi mu war a jàng yi mu war a dallu yi nga xam ne moom la war a bër ak yi mu war a noppalu loolu ñu tënk ko ci juróom benni at bu noppee dana fi mokkal alxuraan bind fi kaamil waaye yóbbaale fi li mënta ñàkk ci xam-xamu diine te da koy mokkal ni mu doon mokkale alxuraanul karim nga xam ne loolu du taxalikoo ak moom ba ba fa soob borom bi subhaanahu wa taala ñu tekkee itam njàngu majalis mi niñ ko leerale sànq nga xam ne moom itam bépp xam-xam bu am njariñ dañ ko fiy jàng waaye nag gën koo tollaleeg fi jamono toll waaye téye nag li nga xam ne moom la ñu sëriñ bi digal muy asala wa tajdiid asli bi dañ koy téye bu mat sëkk sëkk dara du ca mejj waaye tollale ko jamono nag bali jamono la soxla lépp ñu dugal ko ci biir ba nga xam ne yenn xam-xam yi ak yenn njàng yi nga xam ne yaatuwutoon lool te jamono soxla ko léegi lépp dugal nañ ko ci biir ñi nga xam ne dañuy teel a mokkal alxuraan itam ni ko waxee ñu gàttandu leen tënkal leen ko fu ñu waroon def juróom-benni at ñu def fa ñetti at fu ñu waroon def ñetti at fu ñu waroon bu ko defee moom itam danañ mën a jàng liñ bëgg a jàng lépp te seen i at du kawe lool. njàng mu kawe mi noonu ñu def ko ñi nga xam ne moo aju ci wàllu dirasatil islamiyya wala luxal arabiyya bi nga xam ne mooy tax nu mën a dégg alquran mën a jariñoo diine dañ daan ko wuti fu sori ñu def ko noo xam ne lu luñ ci soxla dana am fii waaye dana dëppoog li nga xam ne moom la ñu soxla def ci njàngu métier moo xam ne it mépp métier moo xam ne mënee su koo ñàkk te jamono soxla ko dañ ko fay jàngale ci anam goo xam ne bu ca nit ki génnee rek daf koy daal di a jëfandikoo ci diggante bi nag ñu dugal ci ay njàng yoo xam ne tolluwaayu jamono ji tax na loo xam ne dañu ne woon ñaareelu jéego ba lañ koy def waaye dañ ko boole ci bu njëkk bi muy lépp loo xam ne dafa jëm ci xam-xamu wér-gu-yaram ndax gis nañ ne jamono jii xew li ci xewoon tax na ba jàpp nañ ne loolu mënatut a ñàkk ñu ci sant professeur Maguette Guèye jaare ko ci sëñ Ishaq sunu jëwriñ ji nga xam ne yaa nu boole woon ak moom moom la jokkool wax ko loolu muy bu sotti woon ba noppi mu ñëw indi ko jox la ko àddiya waaye nag nu boole ko yeneen woroomi xam-xam ñu ànd ak moom saytuwaat ko dëppale ko ak li nga xam ne moom nga nuy liggéeyloo ci liggéey bi ak moom li jamono soxla indi itam mahadul luxaat wa tarjama wax loolu euh, kutub sëñ Sam wax na ko léegi professeur Soxna Dieye Diouf ak ñi ma àndal ñu taxaw ci taxawaay bu rafet a rafet boo xam ne yéeme na maktaba bi itam nga xam ne moom itam bi ñu koy waajal mbootaay googu mu àndaloon muy mbooloo mu takku ñoo ñëwoon waaj ko dëppale ko ak fi nga xam ne fi la xam-xamu jamono toll fi mu nekk nii loolu itam dañ ko ci yokkaat waaye maaxat ak tasawuf ak dirasati tasawuf a tasawuf ak dirasatil muridiya boobu itam bu am solo la boo xam ne moom itam dafa bokk ci liggéey bi te moom itam dugal nañu ko ci dugal nañ ko ci biir kon xam-xam bépp boo xam ne jàpp nañ ne bu am njariñ rek def nañ ko ci ndax li ko tax a jóg rek mooy shaar boobu nga ñu waxoon mooy i'laa'u kalimatillahi al-ulya waxtu wu ne moom la ñu teg ci sunu kanam waaye sukkandiku ci bay di sëriñ bi mi wax itam rek ñetti baat yooyu mooy al ilmu naafi' wal amalu saalix wal adabul mardi loolu lañ jëm fu ñu jëm di ko fi yóbbaale waaye mu doon liggéey boo xam ne nag sëriñ bi sunu borom daf ko mayoon sëriñ bi ba noppi kon boo koy jëmmal mboolem nit ñi dañoo àndandoo kenn ku nekk fas yéene cee man moromam ku ci nekk rek lu mu man di ko ci def te liñ mënutoon te jéem ko yëpp it sunu borom na lu ci barkeb sëriñ bi bañ mën koo dugal ci biir bil mustapha lii banal quduusu madrasatan biha yasulul ada wal jahlu wal kabadu boobu itam caar la boo xam ne waxtu wu ne dañ koy nafaraat ñu xam ne lu ko sunu borom defal ba noppi la ndax sëriñ bi ba muy ñaanal ñi dëkk ci dëkkam bii boobu moom rek moo xamal ne Touba mi nii lay mel tey mooy ñaareelu dëkk ci zaahir ñu ko dee wax ci Sénégal mooy ñaareelu ñaareelu dëkk ci mbooloo mi fi dëkk mooy ñaareelu dëkk ci koom-koom bi fi ne baatin ba nag moo jiitu fépp moo jaxlu yaa rabbi ahabba maskani fii ardina lakka walil maaxisani ku ñëw Touba xam ne bayit boobu yi sunu borom jëmal na ko fi bi muy ñaanal ñi nga xam ne ñooy tabax jumaay Tuubaa itam moom rek moo xamoon ne jumaa ji dana taxaw waxfir li man banaw binaaha rafia waxfir li man amarahum bihi jamia wa li jamii man aanahum ala binaiha allazi bi fadlika tala kon moo tax sa sa sa liggéey bii Mbàkke ba sëriñ bi waxee ne sunu borom defal na ko ko fu jamono toll day tolloo moom waaye lu am la ba noppi loolu nag moo tax ñëpp maase ci kenn ku nekk di njëkkante ngir rek man cee def lu man lu mu mënut mu jéem ko sunu borom gàttandu ko mu man ko ci moo tax liggéey bi demee nii mi nga xam ne tey jii kon mboolem lijaan yi nga xam ne ñoo bokkoon ci liggéey bi ñoo fi tasi tey yandu fi ni ko sëriñ Saam leerale bari na ci ñoo xam ne wet gi ñàkk rek lañ xamoon ndax liggéey bi am na ci lijaan yoo xam ne li xew ci li yeneen lijaan yi xamuñu ko woon tey nag daje nañ fi kenn ku nekk gaaral liggéey ba nga xam ne moom la def leeral ko ci kanam ñëpp ba ñëpp xam ko nga xam ne fii ne ñun ñëpp dafa mel ne ñoo ci tolloo xam-xam ci fi liggéey bi toll ñi fi teew itam daanaka lu ni xaw a toll wala lu ko ëpp nekk na ci bitti ñoo xam ne mësuñoo teew bokkunu ci benn laj na waaye nag seen xam-xam a ngi doon ñëw seeni xalaat a ngi ñu doon ñëw ñu dee leen ko dencal ndax danoo xam ne lii ba ba àddinay tukki des moo tax képp ku ci mas a jàpp ci wàllu xam wala xalaat wala loo bindoon yónneen ko yónnee ko dencal nañ la ko dencal boo xam ne incha allahu taarix dana ko bind ñu xam ne kat sa jëf a ngi ci liggéey bi ndax danoo ñaan ni nga nu ko waxe woon bu ñu demee ba fee ñetti téeméeri at wala ba fa soob suñu borom ci jamono ku xoolu tur gis ne kii day sama maamaati maamaati maat la maamaat la bokkoon na ci ñi doon taxawal liggéeyub Cheikh Ahmadul Xadim bii naka noonu ñi nga xam ne itam yàlla da leen a may ay ay kàttan ñoom ñëpp def nañ mbooloo ànd ñëw ci liggéey bi buñ ko doon wax fee dañuy tàmbalee ca sëñ Amdi Xadi Faal ndax gis nañ ne liggéey ba fa Cheikh Abdoul Ahad Mbacke defoon muy miir ba ba nga ko ko yees loo waatee ñëpp dañoo jàppoon ne da ko yeesalaat rek waaye ku fa dem xam ne lee mu def méngoo na sa liggéey bi sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Hakim sa doom gis nga taxawaay ba mu fa taxaw mbooloo mi nga xam ne taliatul muridiya yaa leen ko tuddee ku dem ñu xam ne ñoom dañoo sasoo daare alquran ji wax ne insha allahu taala caabi lañ lay jox man de bi ma fa gëjee bu toll ci weer ak tuuti bi ma fa demaatee démb damaa yéemu liggéey ba tabaarakalla mu ngay dox bu baax a baax a baax Mbàkke mën nañ ne daanaka sax léegi tey bu noppi mbooloo mi nga xam ne ñoo yëngatu fii nekk ci dëkk bi di jaay ak jënd ak di liggéey ñoom itam sas bañ fa sasu muy tuwaarkal la muy waa marché Ocass ak ñi ñu ko àndal ci dëkk bi liggéey ba mu ngay dox doxin woo xam ne doy na waar waa xisbu tarqiya nga xam ne yaa leen tànnalal seen bopp sa liggéey bi noonu ba ñuy waaj këru xasaayid yi moom ah, sunu xel àggu ci woon waaye nag sëñ Tuubaa moom lu ne moo xam na mu koy defee nga woo leen jox leen ko ci joxe ñu nga leen ko joxe ñoom itam ku fa dem tabaarakallaahu am na lu ci doy waar itam ñuy tudde ahlu soxadaa nga xam ne ay soxla nañ ci njiitul soxna soo doxuma moom itam mu sasoo waañ ci waañi maam jaara yi liggéey ba moom itam tubaarkàlla nga xam ne kenn ku nekk nii boroom xam-xam yi sóoboo kenn ku ne la man mu di ko def ñeneen ñi itam noonu lañ man kenn ku nekk ca wàll ga nga xam ne foofu la ma ne ma ngi koy defee waaye nag rawatina liggéey bi nga xam ne nag yow yaa koy saytul sa bopp nga xam ne mboolem taalibe yi ku la mas a joxu fifteen na ko wóor ne dugal nga ko fee ku dem gis liggéey bee nga xam ne moom ngay def loo sëñ Abdou Lahad Ka da ngay yéemu ci li ñu ko defee ci diggante bi ak lan ci koppar moo fa war a dem kon nag ñu ngi ñaan bokki taalibe yi képp koo xam ne daal jëfoon na ci liggéey bi na jàpp na jëfagutoon ku jëfagutoon na jëf ndax feekat ëpp naa bañ a dugal saw ñax te ni ma ko waxee ba ba àddina tukki dafay des bil mustapha lii banal quduusu madrasatan biha yasulul aza wal jahlu wal kabadu te loolu ba ba ba fa soob suñu borom liggéey bi dafay deñ dafay des mu def nag loo xam ne dafay defar nit bu defaree nit nag nit defar àdduna te loolu moo fi indi woon yonent yi alayhimu salaam ba ci sayyiduna muhammad te mooy liggéeyub Cheikhul Khadim sa kili sa waajur yeeg sa kilifa yëpp ci lañ nekkoon ñi tooge toogaayub sëriñ bi ak ñu ko jotuta toogee ku ci ne ràññi ko na ci yow na nga ñëw def nga def ko muy sab liggéey moo tax mu yegg fii kon tey nu xamal la ne liggéey bi jéego bu njëkk bi moom noppi na moom lañ tënk fii ci ay këyit Touba ca kanam ñoom itam bâtiment bañ fa tàmbali woon sasoo ko fa moom itam alhamdulilahi rabbil alamin na sori na lool ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi waaj di ñëw kon daal ñu ngi soññee ni ñu ko waxee ñu ko sañoon ñemewuñ ko sax waaye nu nu nu saraxu sunu nu wax ak sunu bokki taalib yi ku jëfoon na jëfaat ku jëfagutoon na jëf bokk nañ ci sax tàmbali xalaat wax ndax liggéey la boo xam ne gannaaw dafay dem ba fa soob sunu borom dañuy xalaat ci loo xam ne ëllëg ak si biir moo koy moo koy taxawu. liggéey bi itam bi mu noppee mboolem lijaan yi muy commission yi tënk nañ seenub liggéey loolu lépp moom lañ tënk ci téere yii nga xam ne kon jéego bu njëkk bi muy waajtaay wi mën nañoo wax ne noppi na mbooloo mi nga xam ne itam ñoo ko toggoo woon niñ ko waxee ëppoon nañ sax ñeenti téeméeri nit buñ xoolee ak yu mujj yi ñëwaat mën nañ ko nattale ci juróomi téeméeri nit wala lu ko ñëpp di ay boroomi xam-xam yoo xam ne lu ci wet gu ci ne dañoo xool ña gën a ràññiku ndax ñi bëgg a ñëw ñëpp xajuñ ci waaye lu ci ne dañuy tànn ña ca gën a ràññiku ñu ñu ñu séddale leen ñu féetale leen liggéey bi moo tax jéego bu njëkk bi noppi na fi mu ne jëfe rek moo ci des mbooloo moomee itam nag moo tax ñu wutaatoon meneen mbooloo moo xam ne dañoo jël ci mbooloo mu njëkk mi ñi nga xam ne mën nañoo ànd ci mbooloom ñaareel mi waaye yaatal ko nag wutaat ñeneen ñoo xam ne ñoom itam dañoo bëgg ñu àndaat ci liggéey bi ngir jëfe gi mën a gën a mën a gën a yaatu kon loolu lañ ne la ko jëbbal fedd li waat nag sunu laxasaay sukk rek waaf di déglu ndigal fas yéene lépp loo xam ne digle nga ko na ko bëggee danañ ko defe noona di ñaan sunu borom bàyyi la fi tamay la ak wér waxoon nañ itam ne bu noppee danoo bëgg ñu daal di koy tàmbalee jëfandikoo mooy jàkka yi jàkka ju de ñu daal di wut ab jàngalekat bu fa ne tàmbalee jëfandikoo majalis bi daaree alxuraan yi daaree alxuraan ju ci ne daal di tàmbalee jëfandikoo manhaj bii nga xam ne sëriñ daare yi ñoo ko tëral si ñoo ko tëral ba ñoom ñëpp ñu ànd ci rafetlu ko doon négitam sa ndigal ngir tàmbali koo jëfandikoo waaye nag lépp lu ñu def laata laa tafaloo an bi ghayri idni fal idnu shartun fi qabuli sha'ni loolu rek moo taxoon waaye ñëpp ngi ko doon yàkkamti li nga xam ne mooy école yi fi nekk itam te bépp école boo xam ne dafa doon jàngale njàng njàngum xam-xamu àdduna bu am njariñ ñu dugal ci njàngum diine ba mu fees ca dell moo xam dañ ko tibbe ci njàngalem Cheikhuna na Xadim radiyallahu anhu ñi nga xam ne dañ doon jàngale luxal arabiya ak dirasatil islamiya ñu dugal ca njàngum xam-xam moo xam ne ëllëg ku ca génne mépp métier moo bëgg a jàng da ko mën a jàng ñoom ñëpp ñu ngi doon nekk bu ñu amee sa ndigal dal di koy tàmbalee jëfandikoo Mbàkke mooy tënk mooy tënk manhaj tarbawi islami muridi da xam ne lépp dafa tàmbalee ci suuf ba ca ba ba kaw. moom lañ tënkaat fii. waaw yii itam mooy li nga xam dañ ko def ci ko def ci dañ ko ko bëgg a jox. wala koo bëgg a sant. moom day waxtu bi agsi na waaye dara xaju fi de cant rek ci des dara desu ci lu sant mu ngi gën a sant. sunu borom bu baax nu booleeg sëriñ bi di gën a sant sëriñ sant sëriñ bi bi nga xam ne mooy suñu lépp tey ak ëllëg te fàggul nu lépp ndax lépp ci fàggu teful noo ngi sa ak sant rek moom la yeesal di gën a am yaakaar di gën a rafet njort di gën a am xel mu daal kon lépp ak cant rek la gis nañ waa dégg nii ni sëñ Samb bu sa jëkkee waxee sëñ Ahmadul Badawi eh, eh, mu ci teg leeral yi mu ci teg dégg nañ ko lépp fa tabarakallah loolu moom bi ñuy njëkkee xalaat xalaat bi muy mbooloo moo day boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñu ngi ñoom xam-xam mooy seen itte loolu dañ ko jëkkee xalaat ak léegi yàggul dara jàpp nu woon ne dana agsi fii tey ci nëgg ci waxtu wi yëpp jàpp na ko ne dañ doon def suñu suñu yéene rek ak suñu positif ak suñu yitte ak suñu wartif loolu rek moom lañ xalaatoon ne borom xam-xam mat nañoo mat nañoo mën nañu mën nañoo mën nañoo yëg te te ñu yëm ñu yëg seen bopp te te te te xam fi fi fi liggéey bi toll loolu moo taxoon nu. xalaati di daje daje mii di ko daje di ci di di jublu wuñ ci woon dara loolu eh, ñoom yéen ñi nga xam ne eh, ci seen tey bakkan seen coobare seen yéene ju rafet seen pësteef ci seen yitte ju rëy yéen a doon ràññee seen bopp ba agsi fii donc ñooñu ajoo nañu kañ ajoo nañu kañ ñu ajoo sant eh, loolu moo ñu ci dugaloon bëgg rek Euh, euh, boroom xam-xam yi euh, ñu yëg seen bopp yëg fi tolluwaay bi muy tolluwaay boo xam ne bu doy waar la ndax yitte ji moom mosu fee jóg waaye toll dem nañ ba taarix indil nañu doxin doxin bi ci li nga xam ne weesu nañ ko kon daal di mel ne e, loolu lu muy andil faw rek mu andil nu sëmb bu rëy sëmb bu rëy waaw sëmb bu rëy boo xam ne danay jóg danay jóg nag ci xam-xam sunu kem kàttan e, ci sumu dund nga xam ne lan cee def lan ci yëngutu mën ko fa bàyyi ñin ko fa bàyyi ñin fi bàyyi ñu gën xam fa yitte ji toll fa jamono ji toll fa liggéey bi toll ñu fabee ko foofa muy wéy di wéy waaw muy wéy di wéy ni ko amul ba wax di fàttali eelaaw kalimatullahi ulya loolu rek ci moo ci ba ko keroog ba woote ba ba ci suñu jataay bii loolu rek ko loolu ci loolu ci loolu loolu mooy liggéey bi ba sëriñ bi ñëw ne cas moor ko bayiwu ca dara yitte ji xam ne moom la gën ji bindeef yoroon ànd ko saxaabatu rasul yitte jooju da ko ne cas waaw ah, ga woon moor bayiwu ca dara ci dundam ci lim ko gis mu jëfe ko jëfe bu bu leer waaw bu bu gis buñ mën a xam boo xam ne la gën ji mbindéef ñëwoon euh, euh, sëñ bi ne ko cas bàyyiwu ca dara loolu la fi nekk ban ban ba noppi koo gis mu bàyyi nu ko fi nag kon sëñ bu rëy liggéey bu rëy la fi bàyyil kon lu ñu ñàkk ñàkk ñàkk solo war xam suñu bopp xam ne noonu la fi bàyyi kon kon nu da war xam ne nag war nañu jóg euh, ak yitte ju ne cas te fa fa wéyee liggéey boobee fa mu tolloon di ko yëkk yëkk yëkkatil ko suñu bopp suñu kem kàttan ndax bu ñu defee suñ kem kàttan rek la ca des moom borom kattan gi danañu ko yéeg dana ko danañu yéegi danañu danañu booleeg loolu yéegee kon noonu dong la demee sant na ñoo ñu ngi leen di sant di gërëm bu baax seen taxawaay boo xam ne dëgg la seen tawfeex jure la ci yéen yàlla leen ko defal moo ko def ci yéen waaye nag moo def it ngeen téye ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen sàkkul ko seen bopp. yëngutul ci seen bopp wutal ko seen bopp di ca sonn def ci seen yëpp ba agsi fii loolu ñu ngi leen sant noonu lañ noonu lañ ni leen sant yàlla rek sant leen Sëriñ Tuubaa ni leen leen sant yéen seen bopp di leen baax a baax kon liggéey baa ngoog liggéey baa ngoog euh, noonu noonu rek la demee liggéey baa ngoog nii nii nii mu demee moom alhamdulilah dara waaw alhamdulilah yàlla na leen suñu borom gën a gàtt nag tawfeex Sëriñ Tuubaa ba nii ngeen nii ngeen nii ngeen nii ngeen ko fabee waaw suñu moom gàttanu gàttanu leen ak toog gën leen a gàttanu ak toog fi suñu taal muy muy gën di yomb waaw muy gën di yemb di gën di yéwén di gën di barkeel ñoo ngi koy ñaan bu baax ci baaxu Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ndax li ñu yéene li ñu bëgg a